Johanna waxtaan wi ñu déggoon démb ab dëkk di ko wax état bi di ko wax muy kaar boobu ngeen déggoon naan dañ ko fee taaloon ba ngay dégg muy ñaawlu ne ñaari nit dee nañ ca te ñaawluwul quatre vingt personnes yi dee lu ko jiitu ay ati at ci gannaaw président Sonko ne woon gars yi pare nañ pour taal fi ay ndel waxoon na ko nga dem bañ tàmbali ñun suñ classe yi man nga dem ba ay nit taxaw ay imam ñu taxaw naan ay terroriste lañ diko ko sa ci bopp sénégalais li Abdou ci doon wax li ñi togg ngi ni élection ñi sénégal xam nañ ne mënuñu koo gañe te it kuñ fi tànn munta gañe lii mooy liñ programme bu ngeen déggé baat yi nga xamné déggé Abdou ci di ko wax demb lii moko waral ñang koy togge ci kaw nak ci kaw ci kaw ci kaw ci kaw légui nak wax jaagi di benn wax laa daan wax moom laay waxaat benn wax laa daan wax mu lay waxaat nit moom lu mu bëgg nit lu nangu teg koo dagan na dañ ne réew mi ay carte rekk fi daan falli ñoom nee nañ carte du fi amee sénégalais yi fi ñu leen di woo sax fekkuñu leen fa ndax ay lañ bëgg ci réew bi nit ñi bañ léegi nag waxoon naa leen amul leen chance bi Mali am Mali amoon nañ chance ba fa bëggee dugal ay bi Mali am nañu chance bloqué nañ ci aéroport ba yooyu yëpp xam ngeen ne Costa d'Avoine yooyu lañ jógewoon Côte d'Ivoire benn ñaari avion bi ay arme yor bi yor ay ay force spéciale ma dégg ku ci wax du ngeen ko dégg du ngeen ko dégg lu tax du ngeen ko dégg ndax ay la ñu jot démb yéen a ngi déglu ci naan français yi démb démb ci bëccëg yéen koy dégg démb démb démb ñu ngi wax France seen taxawaay ci Sénégal ak ci loolu démb démb démb bërki li ñu koy wax ci gàttal daal mbokk yi nit ñi nangu teg ko daga bu fekkee ne ñun nangu nañ ci groupe bii nit ñoo xam ne soo leen gënul gëñu la wallahi man ku man man damaa wóor na ñi ni taxaw ay terroriste lañ dalee ba ñu maam law ku leen gënul maanaam jàmm ji mu bëgg réew man de ku ma gënul ku ma ëpp ku ma ëppul ku ma ku ma man man man laa wax ku ma ëppul ma ne man laa wax man sama bopp laa wax bu ma neexee wax imam ndaw bu ma neexee wax ñeneen dama ne am na ñoo xam ne ku leen ëpp ku ñu ëppul jàmm ci réew mi ëppoo leen jàmm suñ demee ba état bi taxaw di wax ne ay terroristes lañ ay nit taxaw fii ku mel ne ab dama koy tudd soixante-dix personnes mën a dee fukki nit ak nangam mën a dee ay bal rey leen rey rey leen mu mën a taxaw ne du ñaawlu loola waaye mën naa ñaawlu benn pour naan bu yéen ñi teelu bës tànn ay fen la kàcc fen yoo xam ne si am na yeneen xibaar yu ma ci xam te incha allahu dana leere bu fekkee ne dëkk bi daanu maanaam bu fekkoon Macky Sall daanu ndax lan fañ ko defe Dakar la wax nañ ma enquête gendarme yi ñu def yàlla def leen a weer ndax fa ñu defee film bu dañ ci ay juum ndax foofu yëpp dafa am ay caméra caméra yi bi gendarme defee enquête am na ay enquête yu ñu gis xam na ñeneen ñu ko def te damay wax ne dafa am foo xam ne dafa am ci réew mi dafa doxee wax dafa yéeme réew dafa nekk réew moo ne foo dem am na ay patriote patriote lii ay patriote ñoo ko génnee ay patriote ñoo ko génnee <laughs> ñoo ko génnee ne ñun daal ñooy xool Sénégal ndax dañoo bëgg a mos li ñëpp mos mooy yàq dëkk bi yàq dëkk bi nag wax naa ne mi ngi tàmbalee ca ñu ne Sénégal ay wot lañ daan def. ñu ay arme du dara ñu dem bañ ne loolu amatu fi. ñi fi nekk ñoo fi toog wala buñ fi jógee ñoo fi teg ka fi toog ka fi toog su fekkee askan wi bañ na ñuy jël doole réew mi ko dal ko seen kaw dafa na am ci manifeste yi léegi nag léegi nag élection yii di ñëw nag dafa am leneen lu ci rax ndax loolu mënatul ne lii am mooy ñu fexe ba dugal fii ñii nag su ko defee élection yi borom xam-xam yu bëri waxoon nañu ma ah. borom xam-xam yu bëri même président Sonko ko noonu Macky Sall bay ñu tuddee dóor ay ndell ne ko desi bu ci dëgg ñoo ko def attentat ñoo ko def kon nag di wax ne euh, lu ci waay góob lu ci waay góob sa kër rek maanaam ku gàtt ne réew mi ay am fi parce que ay ki ne ne ay élection am nga ne kooku ay la bëgg ay la bëgg kiñ bëgg rey mu ne ko du ku ma rey ñu ne ay la bëgg kiñ bëgg dóor mu ne dóor tax ñu dóor ñu ne ay la bëgg waaye léegi nag ñoom ñuy wax loolee bu ñuy def ay tàppale ci dëkk bi ndax jël ay arme dugal ko ci dëkk bi ndax kooke nam nar na jàmm ay ngànnaay nga jënd ko dugal ci dëkk bi ndax kooku nar na jàmm jël ñoo xam ne mënuñoo fetal police nationale ab des démb li muy bari tàppale dem mel ne ko police nationale ñii mu taxawoon di wax ne dañ leen a rax mënuñu sax fetal loolu assaini assaini ñoo ñu ko ñu benn police assaini ñoo ñu police lan lan ci taxawaay police tontu ci démb police nationale dem ba jël ay xale yu ndaw di leen baaree ay xeer ak i nangam loolu ndax ndax jëfi police la tontu ci kon di wax ne euh, di wax ne du ma bett benn yoon Sénégal mel ne Mali waaye nag bu fekkee ne sénégalais yee ko nangu bu fekkee sénégalais yee ko nangu donte nee naa la Mali alhamdulilah ba nee ba xam ne ay tappale am na fa ndax laa ko war la waral Mali mel nii kat ay ay ay état rek ko defoon état rek moo de demoon bàyyi gars yi ñu nekk ci suuf ñu nekk ci terrain bi jóoku leen arme ñu dem ba ñeneen yore yenn arme bu doole jàppante daal ba jàppante ba amee arme bi moo mujj perte terroriste dugg ca dëkk ba français bi leen jàpp leen jox alal loolu nag bu tàmbulee dem ba am suñu dëkk bu fekkee nu nangu nañ ko it insha allah dina am Sénégal bu fekkee Sénégal yi nanguñ ko du fa am ñu leen di wax la yàlla jàmm dama xëyul tey yi wax damay wax demal ci kaw rek nga da ngay dellu rek xool fu mel ni lii ba ñu reyee xaddaafi anam ana dëkk ba ñan ñoo ko def tubaab yi bañ koy def fuñ jaar suñu président bi fi nekkoon Abdoulaye Wade jël yebal mu dem seeti chef de rebelle bi yéen a ngi koy fàttaliku booba xaddaafi ngay dund sans mu dem ci xaddaafi ba dëkk ba yàqu ana tubaab yoo ko defoon ñoom seen dëkk ngay dox de <laughs> wallahi seen dëgg ngay dox naka noonu boo demee Saddam Hussein ñan ñoo fa demoon nga xam ne damay wax ne gis nga tubaab yi ñu bone dañu la génnal ci Xadaafi Libye Afrique la Afrique la dañuy xool koo xam nee nañ moo jiite Afrique wala moo koy Afrique def loolu muy muy Nicolas dara ko ci fekkul la fa dee ci nit lañ fa yàq ci alal kenn woo ko fenn kenn topp ko fenn waxuma toog fenn waaye bokk na ci conseil Macky yi léegi muy Nicolas Sarkozy ngeen bàyyi ci xel Nicolas ci conseil Macky Sall yi la bokk li muy géej Sénégal bëriwut li ma leen wax bu leen neexee ngeen wérétee ko Nicolas Sarkozy li muy gis Sénégal bëriwul ci conseil Macky Sall la bokk léegi taxawal foofu loolu maa ngi wax ci mbirum Afrique histoire laa leen di wax léegi bu fekkee da ngaa dem ci Amérique ba muy dal ci Iraq Saddam Hussein kan moo ko def kan moo ko def source bourse ngir la alal ji fa nekk pétrole ba rey nañ Saddam Hussein yàq dëkk ba léegi Amérique ndax ma nga yàq wala yàquwul wallahi yàquwul barki dem rek suñ xale yi suñ jaww ngi daw ay famille di daw dem Amérique kon kon Irak lañ yàq waaye ñoom seen dëkk am nañ fullaak fayda ba yàquwul waaye dama ne Saddam Hussein ba muy def loola ba maanaam source bourse ba muy def loola kan moo ko jàppale dama leen di laaj xam nga dal gi ci kaw am uni dañoo bañoo maanaam maanaam euh, Euh, conseil bi dañoo bañoon dañoo bañoon cinq dëkk yi nga xam ne siir ak nangam dëkk yi dafa muy bañoon. dama ne la moom moo fa nekkoon boobu. Tony Blair moog bu Bush ñoo àndoon nekk ñoo nekkoon ñoo gàddu xeex bi ba ba yàq Irak def fa lañ fa def ana Tony Blair fay moom it ci conseil Macky Sall yi la bokk lu gëj Sénégal <laughs> dama ni ngeen jàpp ñaari yi ma leen wax dama ne Tony Blair. te ña doon dal ca Iraq mu ànd ak George Bush yéen ñëpp a ko xam amul kenn ko xamul loolu Tony Blair moomee fexe woon bay yàq Iraq ma ne la tey ci conseil Macky Sall la bokk li muy gis Sénégal bëriwul wax naa la bu dee ci Libye Nicolas Sarkozy tey ci conseil Macky Sall la bokk li muy gis Sénégal bëriwul kon nag bu ñu leen waxee ne dëkk yee yàqu na defe naa ne war ngeen a xam ne dëkk yee yàqu mu kenn waxatu ko te arab yi nag dañoo wax ne laysal xabaru kal iyaal nit li mu teg bëtam bokkut liñ koy wax yéen ñëpp gis ngeen a Iraq fa mujje gis ngeen fa Libi mujje te nee naa la ña ko defoon ñu ngi ci wër Macky Sall tey bu dee France Nicolas wax naa la ko conseil Macky Sall bokk li mu gëj Sénégal bëriwul bu dee Tony Blair moom defe naa am na sax ay activité Sénégal li mu fi gëj bëriwul ca ña ca ña yàqul Iraq ànd ak sorsu buus kon nag wax jàngoo kenn ku ci nekk na nga ci xalaat allah kulli xaal wax ci benn la. gëm naa ne bu yàqu Sénégal bu yàqu danaa yàqu de ah xam du man dong la yàqu du man dong la yàqu la du man dong la yàqu la réew mi buñ demee ba ak groupe bii ay nit taxaw di la wax ay touriste te gisuñu fenn fu parce que xamuñu ñuy touriste xam nga jiile gi dof bu bon boo xam jaaneen jëf mbokk yi mu nekk ay kàddu yu doy waar yàtt yoo xam ne nag yéeme na lool mu nekk ay kàddu yu doy waar comme ni ñu ko waxee waaye nag dañuy ñaan jàmm rek daal di xew sunu réew di Sénégal ndax kat lu ne mel sax boo xoolee kii nga xam ne moo di député bii di Guy Marie Sagna lu mel àddu woon na si bi nga xamee ne nag amoon na ay minutes fële sa assemblée nationale doon wax que ne nag ñi nga xam ne nag moo di base militaire bi nga xam ne nag moo nekk Sénégal nekk bu France dañ ko fee war jëlee ndax nekkul yoon du dëgg wala bokk ñun ñu daal di am base fële sa France mu Sénégal comme kàddu yu ne mel kii di Guy Marius Sagna daal di woon na si àddu sax. waaye nag ak lu mën di xew rek ñu ngi ñaan élection yi ñëw si jàmm ak salaam daal di passé si jàmm ñu continuer dund sunum réew si jàmm ak salaam continuer waaw comme ni réew mi doon doxe rek mu continuer ki doxe jàmm rek moo fi xat